ko jujee sànq mhm. avant ñu ñëw ci abo bi Vito nu nu dikk ci convocation ki nga xam ne ah, moo di Moustapha Diakhaté ak euh, Adama Gaye mhm. keroog gis naa aussi mu def live di ñu xamal ni mhm. euh, tey convoqué nañ ko fële ca euh, ca ca ca dikk Mm-hmm. Euh, ki nga xam nag moo di Moustapha Diakhaté nu ko ak fële ci cyber sécurité ñoom ñaar ñëpp ginnaaw bu ñu li nga xam ne nag moo di sortie alors ñoom it euh, nan nga mën euh, jàngate wala aussi lan ngay xaar ci li nga xam ne nag moo di seen convocation ginnaaw bu ñu jàkkaarloo ak ki nga xam ne nag moo di enquêteurs Ba ak wax ju rëy nga xam ne moom la fa moom la fa wax mm-hmm. on pense bien que loolu moo tax tey nu convoqué ko fële ca dig Adama Diakhaté bu dee loolu moo tax ñu ko convoqué moom ci émission ba. Uh-huh. dafa toog mu ne mu ngi baalu ak mu ngi ñaan ñi ñu baal ko rek. Uh-huh. waaw ci ci émission bi wax na ne gars yi nañ ko baal ak yooyu noonu. Uh-huh. waaye balaa muy pare ca baalu ak ba dafa waxaat yeneen i bal. loolu mooy problème am moom fu mu toll nii. maanaam baalu na waa Azer. <laughs> ba non mais jaaru ci digg bi man nag su ma ah, doon moom. bu may baalu damay am grandeur. ah mais xam nañ foofu lay kii. damay am grandeur ma ne Abbas Fall. vraiment li ma wax ci sa tur affaire yooyu noonu maa ngi jéggalu seen mag la mais baalu na daal. Uh-huh. démb it gis naa ko <laughs> muy wax ne am na benn site. Uh-huh. boo xamante ne un site inconnu. Uh-huh. Euh, bu ne moom dafay woote ndimbal waaye wootewu ndimbal day yëgle. <laughs> ma ne ko nag du ñun. parce que ñun dañu doon yëgle. démb moom ñun dañu laa yëgleel comme yoo yaa ne na ko ñëpp yëg. fii fexe nanu ba ñëpp yëg ne Adama Gaye convoqué nanu ko. moom nag vraiment <laughs> ñu koy ñaanal juste jàmm. Euh, parce que moom comme il a dit qu'il va dans les rangs uh-huh. euh, qu'il va entrer dans les rangs kon ñu ngi peut-être bu dee ci dossier Azer uh-huh. rafet nañ ci njot comme toog na ci kanam avec des vidéos vraiment baalu bu dee loolu uh-huh. euh, ñu ngi koy euh, wax Abbas Fall defe naa ne Abbas peut-être dina retirer boobu les plaintes bu dee aadama jéggalu na carrément bu dee nag la mu wax ci aadama li mu wax ci Moustapha Ba moo tax ñu convoqué ko. Mhm. boobu procureur am na droit vraiment convoqué ko. li tax mooy bu dee dafa am benn waay ju génn àdduna te doon un éminent personnalité. Mhm. ci biir réew mi ñuy laam-laamee lan moo ko rey. Mhm. ñuy déglu parfois procureur ubbi woon ci enquête. ba ñu def autopsie def yooyu yëpp ñuy lam-laame bu dee am na nit bu toog ci plateau de télé. wax ne diw nangam lanu ko def kon kooku bu nu ko woowee peut-être sax mun na leen jàppale ci enquête bi bu dee moom am na ay preuve yoo xamante ne tax na moom muy affirmer ne diw dañu ko nangam moo tax mu génn àdduna kon procureur bu ko woowee peut-être espérons que dina am ay preuve wala tamit bu dee loolu moom moo tax ñu ko convoqué ko espérons que dina mën a vraiment appesantir ba jàppale ñooñu. Ah. appesantir ay waxam ba jàppale ñooñu ci ci li nga xamante ne moo di boobule enquête. parce que ah. deewu Moustapha Ba ñu koy ñaanal yàlla xare ko aljanay firdawsi ñëpp bëgg mu leer. vraiment ah, parce que li ñu wax ci turam. Uh-huh. ak li ñu teg ci deram. par rapport ak jëf ju baax ji nga xamante ne nekkee woon na ko. Uh-huh. bu dee génn na àdduna ñu ci ciy laamee ay mbir. Euh, bëgg nañu mu leer te moom mi nga xamante ne Adama Gaye bu dee mën na ci jàppale ñi nga xamante ne ñoo di enquêteurs yi. na dem jàppale leen. Moustapha Diakhaté Moustapha Diakhaté euh, moom sunu sunu bàyyi la bu dee ci ay at la. sunu maam sunu maam la sax. man defe naa ne peut-être moom mën na nekk baayu Ousmane Sonko. mais Moustapha Diakhaté ñoom. seen problème ak Ousmane sonkoo lay laajte lan la. Mhm. parfois lan la. qu'est-ce qui se passe. Mhm. lan la leen Ousmane Sonko def. Mhm. c'est quoi le souci avec Ousmane Sonko premièrement. Moustapha Diakhaté bu dee li mu wax. moom tamit moom moo tax ñu convoqué ko Ousmane Sonko musu taxaw ne dama doon tappale. bi mu dajalee gars yi Dakar Arena musul taxaw ne dama doon tappale. mais sax bu dee da doon tappale tamit <laughs> moo tay tappale. ndax koo xamante ne. appareil d'État teg nañu ko sa kaw bëgg laa faagaagal stratégie boo jóg pour génn ci dagan na parce que yow amoo armée amoo pistolet amoo fetel ña nga àndal mënoo leen jëndal ay fetel amoo quarante cinq milliards yoo jëndee arme amoo absolument rien du tout pour te défendre lenn rek nga am mooy teg ses stratégie pour génn ci wala ñoom même bu dama jël euh, kiiwu tappale bi même bu dee Ousmane Sonko da doon tappale ñoom lan la ko du Moustapha jaxate doon digal moom mu croisé ay brawam tëdd nelaw ne kaay leen rey ma toog seetaan bu mu def dara bu mu bu mu yëkkati dara ne hmm. kaay leen seetaan ma kaay leen rey ma loolu la ñu bëggoon ñoom Ousmane Sonko def kon ñoom rey lañ yéene woon Ousmane Sonko di hmm. bu dee ñoom amut benn stratégie boo xamante ne Ousmane Sonko bu ko biralee dinañu ko nangu hmm. dem Ziguinchor bi am na luñ ci wax mbirum grève de la faim bi am na lu ñu ci wax. Mhm. mais bu dee yow sa moroomu doom ngay toog ci plateau. Mhm. di dëpp ay waxam te mu leer na ne kii la mu doon wax waxeewul noonu. Mhm. loolu yaa problème juste ci kaa boobu. beneen cas Moustapha Diakhaté saaga na peut-être la majorité de la population. ok yëpp la parce que bu dee cinquante quatre pour cent. ci ay nit. ñoom ñoo voteel Ousmane Sonko. yow nga taxaw ne ñooñ ñëpp dañoo alku wax jooju rëy na de alaaj mhm. Sénégal la dagal. ah nit nag yàgg na fee wax lu rëy moom Sénégal fii moom. concours wax ju rëy moom bu doon am moom defe naa ne Sénégal moom ñu ndaw ñi suñu waxkatu yu rëy yu ndaw yi la ñuy jël yóbbu. Mhm. du ñu yóbbu ñu mag ñi de ay Moustapha Diakhaté ak yooyu ñu ndaw ñi rek bu ñu ko yóbbee à l'international ñu toj fa. Mhm. heureusement ba concours kaamil la ñuy gagné à l'international ñu ngi jéem nëpp nëppal suñu wax yu rëy yi sëñ Moustapha sëñ sëñ euh, Cheikh tijan si Al moom laa doon déglu sànq. Mhm. mu ne Sénégal bu ñu dul woon wax ay wax yu rëy rayante nañu suñu biir. mu ne parce que parfois di nga mere nit. Mhm. wax ko wax ju rëy joo xamante ne doo boo amoon yéene ray ray ko sax dootoo bëgg mu dee da ngay bëgg mu toog di misère wax jooju. Mhm. <laughs> tellement ko wax yi dañuy rëy. ñoom wax yu rëy yi ñuy wax ci deru Ousmane Sonko bi. lan moo koy justifier. Mhm. Ousmane nag mën na muñ loolu mu ngi muñ. Mhm. mais nag booy ñëw ba à l'encontre des Sénégalais. Mhm. man la question que je poserai peut-être à Moustapha Diakhaté mooy ban légitimité la am. Moustapha jaxate depuis defe naa ne 1960. xaw ma nag yan at la am. waaye ba ñu amee indépendance ak léegi. fekk fekkeewut lépp de waaye lam ci fekkee bëri na. Ah, te yàgg ci politique. yàgg na ci politique mais Moustapha jaxate ban légitimité c'est-à-dire man peut-être c'est une question nag. Mhm. je n'ai rien contre sa personne et je défends personne tamit sama xalaat laay wax. Mhm. mais Moustapha Diakhaté lan la créé. Mhm. ban entreprise bu mag la Moustapha Diakhaté teg. yan sénégalais ñoo tekki ñu ne ci loxo Moustapha jaxate la ñu jaar. yan projet de loi yu am njariñ ñoom ñoo jàll assemblée nationale ñu ne Moustapha Diakhaté la jaar. yan problème la ñuy tudd fii ci Sénégal. ñu ne kat ba mu naree jóg Moustapha Diakhaté moom moo doxoon tànku jàmm. Mm-hmm. yan nangam ak nangam ba moo koy may légitimité mu mën a toog jàkkaarlook jàkkaarloog 54 pour cent des sénégalais ne dañoo alko parce que dañoo voteel nangam. Mm-hmm. loolu problème la mais wax ji mu wax nag rëy na. Mm, rëy na de Sénégalais bu neex mën na porter plainte ah, mais mais mais mais mais il faut respecter les gens parfois mhm. gis nga nag li ñuy wax ne un état doit être fort mhm. ci lii la état bi war a foore même bu dee justice ak état absolument amuñu amuñu rapport mhm. mais nag foor gi dafay am benn benn instant ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi ñuy jël seeni responsabilité jël seeni responsabilité da ciy bokk bu nit waxee lu mu warta wax ñu mën ko ne jàpp ab plainte mu dem wuy ji mais ñoom nañu respecté sénégalais yi. saa ñii nañu respect bu ñu respecté wul Ousmane Sonko. nañu respecté sénégalais yi mais nag Moustapha Diakhaté. am na problème tuuti. problème bi peut-être problème mu xaw lan lay doon mais peut-être nag parfois xam nga ay nit dañuy soxla dem gisi psychologue. surtout ça yaa ngi dégg xam nga Pape Cheikh Diallo fa ni ñu ngi koy dégg mu ne dafa amoon sa problème mu santé mentale mm. dem États-Unis faju parce que dañ ko doon wax nangam gis nga ñi Ousmane Sonko li mu leen teg. Uh-huh. dañoo war a dem gisi ay psychologue ñu waxtaan ak ñoom. wàccee leen non du jaloux ndof la. parce que am na yenn yoo xamante ne du jaloux jaloux mooy fiiraange wala uh-huh. ñeemantal yooyu peut-être ñëpp lay dal mais lii du jaloux parce que nit ki boo ko toppee. Uh-huh. dégg naa sax démb am na ñuy wax ne dàqam jaar na ji dàqu Ousmane Sonko ci loxoom la jaar ak. mbir yooyu noonu yi ñu teg ci mbiram. mais benn question. saa waay nit ki bu dee dàq lu dàq nañ ko wala xaw ma ndax moom moo ko def xaw ma defu ko. waaye bu dee ñu ngi lamlaamee loolu teewul mu génn ci. ngay saaga teewul mu génn ci suite bu te ñëw. amut wax ju ci Moustapha Diakhaté waxut ci àdduna teewul muy continuer mbirum nit ñi dee ñi ci mbedd mi. 80 moor yi amut lu ci Moustapha Diakhaté waxut teg ko ci deru Ousmane Sonko yi. teewut Ousmane di dem ci kanam. teewul Ousmane continuer mais teewul tamit Ousmane Sonko ñu fal ko fal nitam mais nit ki nga doon saaga di wax lu ñaaw ci deram yorut dara yorut absolument rien yorut benn pouvoir mënuloo woon ko dara te loolu nga doon wax teewul yàlla jox ko pouvoir. Hmm. léegi mu dem ba yàlla jox ko pouvoir nga bëgg a continuer encore la nga doon wax amutoon doole ba mu amutee doole ba mu yorut dara. Hmm. xanaa kay bu ko yàlla joxee doole nga war a ragal sax tiit xoolaat sa bopp. ne lii casque lan moo ko causé. vraiment. mais léegi ñu ne noonu dañuy persister. dañuy gën a avancer même bu dee yàlla moom la fal. même bu dee yàlla ay nitam la jox nguur. mais loolu lan la lu koy expliquer loolu. loolu yabaate la. wala ak ndof la. wala euh, qu'est-ce qui se passe. non y a quelque chose nañ ñu expliquer xanaa man kay bu ma doon xas nit. xas baadoo la ba mu doon buur. ma mën a dellu ginnaaw xam ne buur kenn du ko xas nag. Ah, waaye di ko xas ca mbaadoo la ga ba mbuur gi ñëw. nga continuer di ko xas ci mbuur gi. Ah. yenn yi xarul la de. mais léegi lan la exactement léegi dañoo bëgg daal ñoom Ousmane Sonko. Uh-huh. dégg naa leen sànq ñu naan dañoo am liste deux cent xawma lan personne boo xamante ne bind nañ ko. ba ku ne di lim naan man ci liste balaa bokk ak waaye duñ ma teree wax. <laughs> waaye yow nit ñi di wax. dañuy lancer pétition. <laughs> yow nit ñi. Uh-huh. di xëy di wax lu leen neex ci télé yi. Uh-huh. mais bu dee da ngay wax te ragaloo diffamer kenn. da ngay wax te ragaloo saaga kenn. da ngay wax. te ragaloo atteinte à l'honneur de personne looy ragal pour ñu tëj la. Ah, ku taxaw di wax ne damay ragal te dinañ ma jàpp bu dee nguur gi nguuru jàmm la. Mhm. bu dee nguur goo xamante ne ku nekk ak sa droit dañu la koy jox. Mhm. parce que bu dee da ngay wax waxuma li Macky Sall doon def da ngay ñëw di reetaan ñu jàpp dem tëj. Mhm. da ngay ñëw def commentaire ñu jàpp dem tëj bu dee bu dee état de droit la ñu nekk. tu peux vraiment fair face. aux téléspectateurs et aux internautes faire tes sans vraiment attenter à l'honneur de personne. Mhm. loolu looy ragal. à chaque fois bu nu gisee euh, koo xam ne dafa yëngu ci wàllum politique bu ñu ko convoqué euh, ñu si bëri dañuy évoqué euh, li nga xam ne nag moom moo di état de droit ak li nga xam ne nag moo di démocratie. Mhm. est-ce que tey ji mën nañu wax démocratie mais ci ci fànn bi nga xam ne moom la ñu gis Sénégalais di ko defee maanaam yëkkati wax lu la neex mun la convoqué nga naan liberté mhm. d'expression. mais loolu réew la. alaaji nañ ko wax te dee. mi dañoo am ay xale yu ñu toog di seetaan. kenn gënu fi muus kenn sénégalais yi ñii di ñu seetaan ëpp ñu leen xam-xam ëpp ñu leen ay diplôme mhm. gënuñ leen dox gënuñ leen a voyager amut lu ñu leen ëpp xam mhm. amuñ lu ñu leen gën a xam yàllaa ñu teg nattu ñu ñu toog fii ñoom ñu am ngoru nag toog du ñu seetaan mhm. donc ces gens là on doit les respecter ba xam lan la ñu war a wax ak lan la ñu warta wax ba xam lan mooy vraiment kàddu yu ñu war a yëkkati teg ko ci deru kilifa am ba ba xam yan kàddu lañuy ñu war a yëkkati teg ko ci deru kilifa. Mhm. mais démocratie ne justifie ne justifie pas anarchie. Mhm. ba waaye lu neex waaye toog wax ba lu la neex toog wax ci deru ku la neex. ba mhm. ñu la neex saaga. juste parce que yow la caméra yi tiim yow yaa toog ci télé bi yow yaa am légitimité lu wax lu la neex. loolu moo war a dakk ci réew mi. que ça soit sa compte TikTok que ça soit sa site internet wala sa télévision wala lu munte doon booy wax. woddal wax ja ngay wax te xamal ni nga koy waxee surtout nag booy wax ak kilifa. Mhm. même sax booy wax ak le lam lambda. Mhm. mooy loolu mais booy wax ak ki nga xamante ne sax institution la. Mhm. dañu ko teg te ñu ëpp ci réew mi teg ko ko teg ko fi. ñu ëpp ci réew mi am lu ñu yaakaar ci moom. ñu ëpp ci réew mi am vraiment cofeel ak mbëggeel boo xamante ne ñu ngi koy manifester ci moom muy def loo xam ne munoo koo def. Mhm. muy dajale ñoo xamante ne mënoo leen a dajale. muy éveiller espoir ak yaakaar ci population boo xam ne éveillé woo ko. Mhm. yaakaaroo ko. nit ñi amuñ yaakaar boobu ci yow nit ñi amuñ espoir boobu ci yow. Mhm. nit ki nga xamante ne 54 pour cent des personnes te man mu leer ma ne. wala ma am yaakaar ne ëpp na nit ñi nga xamante ne votel nañu Ousmane Sonko mais respecter ces gens. et respecter même sur même si tu respectes pas cette respectez la au moins pour les gens ki qui lem l'aiment parce am na ñoo xamante ne bëgg nañu Moustapha jaxate Diakhaté lañ sant comme moom bëgg nañu Ousmane Sonko jaxate lañ sant comme euh, comme Moustapha Diakhaté boo demee kër Moustapha Diakhaté di nga fa fekk tey koo xamante ne Ousmane Sonko lay nooyee. bëgg na Sonko. mais respecteel nit ñi respecteel Sonko. jomaay fu mu toll nii ku ko respecté sénégalais yi nga respecté. ku ko ŋàññi sénégalais yi nga ŋàññi ku toog ci télé naan diw dafay fen ak diw di jaay ne yow da nga garaaw. wala da nga am fit. saa nit ñi def lu ñu war a def ci yow. parce que bu ñu ko deful. Mhm. y un danger un un grand danger qui court. Mhm. parce que dina am koo xamante ne bëgg na Ousmane Sonko te je souhaite pas ça. Mhm. ñuy wax Ousmane Sonko dara loolu naqari ko kenn faju ko mu ni mu jóg bés ne da koy fajal boppam. loolu bu ñu ko defee on court vraiment de grands risques dans ce pays. kon ñi nga xamante ne ñoom ñoo gis. peut-être ne diw mi ak diw am na ñu yaakaar ci moom am na ñu bëgg ci moom. Mhm. mais nañu protéger diw sax ndax ñi ko bëgg. Mhm. mais qu'ils ils doivent arrêter ñaanalu ma ko dara nag. Mhm. ñaanalu ma ko ñu jàpp ko ñaanalu ma ko ñu ñu ñu ñu ko ñaanalu ma ñu téye ko ñaanalu ma ko absolument rien du tout. mais au moins qu'il arrête qu'il fait ses chroniques. qu'il fait ses analyses. yi nga xamante ne amalul njariñ sénégalais yi. parce que gisuñu fi benn analyse wala benn dara boo xamante ne def na ko lu tax nit ñi yeewu wala nit ñi nangam nit ñaa ngi ci lu ñu nekk yow nekkal ci lu ñu nekk mais respecte les gens au moins en espérant que bu nit ñi. ndax ñu jàpp nañ yoon changement commencé na si am ndax yàgg nañ toog ci ci ni ay kàddu yu ñaaw la fi nekkoon daanaka dañ daan gëmm seen i gët duñ leen mooy seen mbir ñu si bëri jàpp ni ci wàllub yoon moom ab changement commencé mhm. dafa war a am ci ñaari côté yëpp. nga faral Ousmane Sonko. Mhm. di saaga ku faral Macky Sall. Mhm. dañ laa war a teg ci yoon. que nga faral Ousmane Sonko di saaga ku nekk ci opposition bi dañ laa war a teg ci yoon waaye naka noonu tamit que nga nekk ci Ousmane ci opposition bi di saaga ku faral Ousmane Sonko dañ laa war a teg ci yoon. nga nekk ci opposition bi di saaga Ousmane Sonko dañu laa war a teg ci yoon. loolu nag mooy. justice des vainqueurs ñoom bu ñu ragalee aller vers ça aller vers ku saaga Ousmane Sonko ñu jàpp la ku saaga Jomaay ñu jàpp la parce que. Mhm. dañuy sóoraale ne état de droit la ñuy nekk wala dañuy sooraale ne fii réew mi kat boo ko defee nit ñi dañuy wax. Mhm. anarchie mooy juddu anarchie mooy juddu mhm. ku def lu dut yoon ak boor boo warta féetee nañu la jël teg la ci yoon. réew mi nit ñi delluwaat ku ne respecte nit ñi. te xam ne nit ñi dañu leen war a respecter c'est le minimum qu'on doit à ces gens mmh. à ces charmants sénégalais vraiment qui nous regardent Absolument. qui nous bu ñu toogee ci kanamu télé mmh. mais respecter nit ñi. très important c'est le minimum. Uh-huh. alors euh, Momo dañuy ñëw ci euh, libération lu mu xëyee tey dikk ak ñun baax baax ci ki nga xam ni euh, moom moo di Abo Mbacké